feebar bi nga xam ne mi ngi jax jaxal réew mi ñëpp jaaxle ñëpp tiit waaye di ñaan yàlla suñu borom nga xam ne moom rek moo ci mën dara yàlla ñu ko yàlla faatal tey jii nag avec notre mouvement MJKDFS génn benn slogan slogan mi ngi tudd faat coronavirus na fi jóg une bonne fois pour toutes et donc nekk aussi si ginnaaw le ministre Diène Farba Sarr bien vrai que tey du bésu politique tey du bés boo xam ne. politique lañ ci wax ne dañuy bés boo xam ne bu ñu ñor la pour sensibiliser les gens pour wax leen ne la maladie existe du ay fo du ay politique du caaxaan maladie bi nag mi ngi koy tuddee coronavirus tur scientifique ñu koy wax Covid 19. et donc lu lu lu doy waar la soo gisee ñu tuddee ko loolu ñoom ñu ko tuddee loolu ça veut dire que maladie bu récent la bu bu bu mujj la moo ñu dégg Covid 19 et donc virus la. virus boo xam ne nekkul ne virus du bënn yaram virus da nga koy lekk mu mun laa gaañ wala nga laal ko noyyi ko wala nga def ko say bët moo waral ne boo génnatee bay génn say dugg sa kër na nga raxasoog saabu ba set wecc euh, jël mouchoir fomp sey kii di moytu di dajaloo bu bari bi di moytu di saq ci nit ñi di moytu aussi euh, wax dëgg yàlla tilim ndax balade bi loolu lay bañ léegi nag ñu si bëri peut-être comprendre noonu lu ñu demee ñu ngi ciy fo su ma gisee ba ay comédien wax dëgg yàlla jël di dugg di comédie ci malade bi di si kaf di ci reetaan parce que xamuñu degré maladie bi xamuñu maladie bi lor loraa ngi gum num na lor te tam ñu ngi sàgganloo ay nit mais oote Sénégal buñ di sàggan maladie bi ça existe et te tout le dangereux la mun na ay loraange te ñaanuñ ko yàlla wax dëgg yàlla mu am doole fii si Sénégal ñaanuñ ko yàlla doole nu mu defee ravage ay Italie ay Chine ay feneen ci réew mi ñaanuñ ko yàlla mu mel noonu parce que ñun Sénégal amuñ jumtuwaay yooyu amuñ mooy mais malgré nos béquilles financières état du Sénégal mi si def lu mu mën wax dëgg yàlla les bonnes aussi ñu si def lu ñu mën di saluer aussi euh, ni kii nga xam ne mooy xalifa général des Mourides mu sëñ Mountakha Mbacké li mu def noonu jël 200 millions teg ko ci table bi jàppale état ba ñëpp suivre ci ci suivre euh, kii boobu noonu ñu ngi koy saluer di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam di ñaan yàlla xalifa généraux yëpp yàlla guddal seen fan parce que tamit ñëpp a ngi seen ñëpp a ngi seen ñëpp a seen ñëpp a ngi seen euh, ñaan yàlla wax dëgg yàlla di di di di dimbale état bi di ko pousse loolu nag mooy solidarité loolu la Sénégal am loolu mooy chance Sénégal suñu chance mooy lan mooy Sénégal dafa mu ñemee solidarité suñu chance mooy lan mooy sénégalais dafa wax dëgg yàlla mën na lu waay lu sa waay nekk yow yaa nga ca loolu moom mës a nekk suñu suñu suñu style et donc ne buñ ko bàyyi mukk tey jii nag may oo fii ci Kaolack laa nekk Kaolack nangaan waaye maa ngi oo Kaolack waa yëpp di oo toutes les autorités ngir yàlla ñu ko jàppee politique mbir mi du politique man Ousmane Nawel derrière Diène Farba Sarr ak mouvement MJK je suis prêt pour nekk ci ginnaaw ñëpp ñu am travaillons main dans la main pour ñu xeex coronavirus. ñëwoon fi pour politique ñëwoon fi pour parti bi dina fii laa bokk ak fee laa bokk mais dañuy ñëw pour xeex coronavirus moo tax ñu jël bagage yëpp ay madaar eau de javel ba euh, euh, gel bi ah jël jël jël jël savon yi yëpp. dox dëgg yàlla jox ay néew doole yi nga xam ne peut-être seen seen doole euh, euh, seen seen doole seen loxo jotu seen ginnaaw parce que am na ñoo xam ne gel cher na si ñoom am na ñoo xam ne savon yi xamuñ sax nu ñu koy jëndee am na ñoo xam ne aussi ñu ngi exposé wu ci mbedd mi ku ci mel ni taalibe yi daara yi ñu ngi dox di dem seen yoon ñooñu ñëpp da nga la ñu sóor aussi may o oo sama mbokk politiciens yi di oo autorités yi yëpp nañ def nii parce que lii moo am solo parce que kat boo ñëwee ci réew ñëw ci dëkk bu politique jotee kat askan wi ngay sonal bu politique jotee kat ñoom ngay yóbbu ci tribune ñoom ngay yóbbu si stade yi ñoom ngay yóbbu fépp et donc kon lii bu ñëwee ñun ñëpp aussi nañ leen liggéey mais dans la te jël politique teg ko fële comme ni ko opposition bi defee aussi ñu ngi gën a oo ñëpp encore ñu bañ a kenn nekk di yaa ngi di ñett naan yaa def lii ni ñëpp ñu àndandoor liggéey mais dans la pour xeex pour faat coronavirus c' est beaucoup plus important yalla ñu ko yàlla teggal ci daraja Seydina Mohamed te yàlla sa jaam yaa ngi nii yàlla ñëpp ngi nii muy amul président de la république amul sëriñ daara amul xalifa ñun ñëpp yow sa jaam lañ yàlla ñun ñëpp xalifa général beeg président de la république ñëpp sa jaam lañ waaye yàlla ñun ñëpp ñu ngi toog yaakaar la yaakaar ñu kenn ku dul yow yàlla nguñu yàlla faatal coronavirus génn ko ci àdduna bi ci daraje Seydina Mohamed ci nu mu gën a gaawee yow yaa ci mën dara du du du lii yëpp ay sabab la rek waaye yow mi ci mën dara nag ñu ngi lay tàll loxo yàlla nga dimbala ñu génn fi coronavirus ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di di nuyu aussi di saluer aussi président la république wax dëgg yàlla malgré nos maigres moyens am nga Sénégal puis c'est un pays sous-développé waaye président de la république ci dox ay jéego yu baax di dem fu ko neex ba dëgg yàlla ba léegi macha allah zéro décès la ñu wax si suñu loolu nag on touche du bois yal na yàlla continuer ko muy feebar di gën a dellu ginnaaw ba jóge fii ñu ngi ñu ngi félicité président de la république Macky Sall ci initiative yi mu jël wax dëgg yàlla il est brave wax dëgg yàlla yal na ko yàlla dimbale yàlla may ko ci ci barke Yonent bi salaa salaam ba feebar bi fii.